Modou Lo yàlla dogal mu dugg ci défaite Gris yàlla dogal mu dugg ci victoire Modou Lo day ñëw wanewaat boppam wala Gris day ñëw wane ne damaa juum wala conseil laa bëriwoon waaye li ma la mën a waxal dara ci combat bi mën nañu gisee ñoom ñaar ku nekk wàññi na poids normal to Moustapha Mohamed Ali ñu ngi waa Moustapha dóor na Mohamed Ali dóor Moustapha jël fekk si Mohamed Ali ñoom ñaar ñu ngi bëre bëre bu doy waar ci diggante Moustapha Gueye Mohamed Ali kenn mayu sa dara Moustapha Mohamed Ali moom Moustapha dóor na Mohamed Ali ku pañ ci daanu. te bu muy bëree moom it daab ba muy bëree moom dafa bëree isam li may wax ñaar ñooy bëree mooy bëree moom jëlul benn initiative mais nee naa la bii incha allah su bëree ci kàttanu yàlla ma bëree su bëreewul ma bëree jàpp ko incha allah bu bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko wax ju bari jaru ko nañ ñaan yàlla may ñu tarak fekk am fuñ jaar xam nga Gris Bordeaux moom xam na erreur bu mu defoon waaw kooku boo déggee si ñaati mu waxee nga xam ne am na beneen am na leen lu mu war a ñëwee waaw am na am na benn rage bu benn am lu nekk ci yaram bi mbooloo tamit aussi dafa jóge ci defet xam war a ñëw te ku ci nekk tamit xam naa sama nit waaw ku ci nekk ñoom ñaar ñëpp laal naa ci mais combat la boo xam ni combat bu doy waar la. Euh, ñi nga xam ne dañu ŋànk làmb ak ñi xam ne dañu su sport ñu prêter attention xam nag la xam sport la mooy sport sport sport euh, sport de combat c'est toujours comme ça sport de combat les à chaque fois nouveau yooyu lañu fi jëlee c'est la jeunesse mais man dama ko xool sama bopp rek man gars yi ma bëri ñi mag leen ñi damay ñu mag ma damay ñëw dal dal seen kaw parce que loolu laa gëm waruma taxaw mais kii bu dee bi bëri man fii ba suba day taxaw. parce que ñemewu ma ñamul sama loxo da koy sóoraale day sóoraale sama direct bu baax. dama bëgg bu bu ñëwee bu ñëwee le 31 dama bëgg mu dëggal boppam. su dëggalee boppam combat bi gu yàgg. mais kon bés boobu di nga xeex. dama ne la lu xeex may lan raw xeex lay def mais dama bëgg la xamal ni moom ci boppam combat bi man lay xaar ma def ko dama danaa bëre mais dama bëgg a wax prêter attention ci ñiy seetaan yëpp ñu xam làmb ñi suy bëre Gris Bordeaux day sóoraale Gris Bordeaux ba du bëre. kii dafa jël lu koy wax loo mais kenn du wax Modou loo di wax tàppet te ñëpp xam nañ ni sama sac combat li ci war yëpp dama koy ñëw def mosuma bëri combat pare ñu jéppi ma. loolu laay wax mais moom dafa bari wax nii di wax rek xaw ma lan moo ko dugg tey quoi muy wax mais nañu ñaan yàlla mañu talak fekke ba bis ba ci wàllu ci wàllu bagaar moom dina dina neex trop mais loxo giri di sa trop waaw jàmbaar waaw <laughs> xam nga waaye xam nga sax waaye moom loxo mi dafay mel ni su bàyyi xam nga ay ay mënumal sax expliqué quoi xam nga bu fekkee bagaar am na moom dina doon dina doon lu doy waar nag xam nga waaw bu ci bagaar am. déggee nga dafay ni bagaar avantage yu la war a doon. waaw giri moom loxo yi diis na quoi parce que ñoom ñaañu ko ci nekk jël naa sa coup quoi. dafa demoon états jàng fa boxe mën a xeex mën na xeex mais Modou Lo ku ko fayoon ay milliards ku ko fayoon ay milliards du taxaw di xeex ak man lu leer laa la wax. kii de ba amul saas dëgg incha allah dama koy doon wàcc bu soobee yàlla ba amul saas dëgg dama koy doon wax ju ji matu ko wax ju bari ji matu ko mais ñoom xam nañ ni chaque fois lii seen mënin la ñoo yor wax ji moome ko mais wax ji muy wax rek laa am ci combat bi. ñoo wàññi seen poids normal. am seetaan naa leen pour rapidité bi. ndax boo man ci man li ma yaakaar. combat bi combat bu gaaw lay doon. waaw gisuma ne ñoom dañuy ñëw taxaw kenn ku nekk di balance benn benn non non non. gaay combat bu garaaw la bagaar ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañu bu ñu xeexee kenn mën na wàcce moromam ndax yaakaar nga loolu. non tout est possible. parce que làmb la xam nga làmb boo ñëw lépp ngay sóoraale. xeex bëre noonu. mais bu la yàlla dogalee tamit aussi nga naaj ci bëre bi. Euh, doo joxe en 100 aussi tamit ci xeex bi. wax ji muy wax ni rek la ci am te daa xam ni loo fi wax rek di nga wax dëgg li nga ci wax bu bis baax incha allah loo am dinañ la ko na la yaa waxoon lii. bu yeboo booy wax nga wax looy mën ak looy def waaw waaw baax na wax wax wax na bon man fi ma waroon njëkkee fi ma waroon njëkkee